asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ñoo ngi sant Cheikh Mahamadou Fadil si taxawaay bi ak leeral yi di sant bu baax ci dégg digal gi mu digal xutba bi barkeb xutba bi dégg gi rek suñuy nopp doy nanu daja des nag moom ma des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ gudd loolu di moo di rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu ci moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonteeg suñu taalibe da cay suñu kem kàttan góorgóorlu itam bu baax sunu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci suñu jëflante suñu jëflante yépp ñu ko sonne góorgóorlu ci bu baax ci mu gën a rafete jëfe makaarimul axlaaq yi maanaam di jëfe jikko yu tàdd yi wan gannaaw itam safaan yi kon diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu lépp tey ak ëllëg dëkk sax dakk ci wéetal sunu borom ci lépp sax dakk ci doyloo sëriñ bi sunu digganteek moom ci lépp sax dàkk nag ci góorgóorlu bu baax nag sàmmonte suñu diine rek sàmmonte suñu taalibe loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant bi yépp sant bokk jullit yi taxawaay bi nga xam ne waxtu wu nekk ña nga ca muy taxaw tem ci diine ji taxaw tem ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe du dara lu lépp looy def di ko def te yàlla tax muy bëgg muy mu muy jëf lu baax di daw lu bon yàlla tax di wattandi ko bu baax safaan ba ci lépp luy xeeti tere ak lépp loo xam ne ña rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe góorgóorlu bu baax ci li ñu feen di muy jaamu yàlla rek la ca dolli mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jikk moom ci lañ mooy su njëriñal tey ak ëllëg mooy suñu biir suñu njëriñal biir ak bitti ci la suñu mucc mucc nekk muccu tey nekk ci la muccu ëllëg nekk kon góor góorlu bu baax a baax a baax su yitte jépp ñu ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mi ngi ci yàlla ne suñu yitte jépp ne yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex jure ji nga xam ne suñu boom defal na may def may na ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mooy mooy jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci diggam boroom kon lépp lu mën doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba santee suñu borom donc bu baax a baax a baax mu gën fab sunuy nas gën na koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci des lépp ne kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu sunu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi bokk yi taalibe yépp bokk jullit yépp kilifa yi yépp ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp ndax bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekk nekk nekkal fi yàlla ni mu ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek la ci lépp nag mu am ci rafet njort am ci xel mu dal gën cee gën am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay xam nañ ni taxawaay yi yitte ji yëpp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabarakallah